lu bettuñu aussi parce que xam nañ ni gouvernement bi ak i démembrement am justice dañ nekk ci manœuvre manœuvre yooyu mooy jéem tiital xoqatal wala dem a nasaxal candidature Bart à la mairie parce que fukki at ngay renvoyé am na loo ci dëgmal lu dul loolu mais dama leen di wax ni ce sera vain c'est-à-dire du sotti mënul ne et duñ ko nangu li nga xam ni mooy la ñëpp war jàpp dañu yaakaaroon ni ñu réew comme démocratie yu mag yi la nekk ci démocratie toll ci état bi ak ci jeu démocratique day tere boppam di intervenir wala di def loo xam ni dana mën a impacter ci processus électoral parce que dama dégg procureur général naan dañu arrêté date bi avant mais date élection bi aussi c'était prévu avant su fekkoon ils étaient dans cette posture d'éthique et de non implication et de non intervention dans le jeu démocratique du ñu arrêté date boobu dañuy téye seen bopp ba élection yi parce que Barth du toxu du daw ñu soxlaa di ko jéem a juger ci date bi nga xam ni day perturber préparation élection préparation campagne mënoon nañ def comme réew yëpp nga xam ni dañuy respecter démocratie li ñuy def jël date bi waxtu woo xam ni Bart duñu mën teg benn pression ci moom mais lii ñu def justice dafa intervenir ci processus électoral bi rafetul jekkul warul dañ ko war dénoncer